xaama dem woon la ko après mu soog a ñëwaat fii onglet personalisation dafay laaj nga am ay vidéo pour mën a paramétrer playlist yi ak mën a def vidéo yi nga xam mooy intro mu ngi nii bu ñëwee onglet personnalisation mu wàññi tuuti voilà boo ñëwee fii ji nga onglet personnalisation moo ngi nii boo ñu ko cliquer gis nga xam nga démb ñu ngi woon branding bu fàttali ko dugal suñu euh, information yi for am fii ma waxoon la après disposition lay ñëw après ñëw information soo ko dem paramètre mais nag étape bi suñ ko sotee day poser problème parce que après dañ ciy dañuy dabewaat te ba pare suñuy jàngale fii ni ñu ko war a régler duñ ko mën a am ni ñu ko bëggee de li su bëri kon wax te théorique lay nekk mais duñ ko mën a wane muy lan muy ay vidéo dafay war a mën nekk pour nga mën a def bande annonce pour nga mën a sélectionner li nga vidéo pour les abonnés ak tamit disposition bi playlist yi war a am waaw moo tax minimum bëgg nañ balaa ñuy ñuy def euh, partie bi ñu dugal fi 10 vidéo léegi kon nag vidéo tey bi dañ lay wan leçon bu am solo muy lan muy nan la ñuy dugalee vidéo dugal bu jaar yoon ci li nga xam ne mooy YouTube voilà boo yore ordinateur lañ koy jaare mais même boo yoree euh, li nga mooy téléphone mën nga ko def waane doo ko def ak application YouTube normale bi ñuy seetaanee vidéo yaa ngi koy defee ak application YouTube Studio YouTube Studio application boobu moom moo mën a dugal vidéo defaale ay détails mais application bi ngay seetaane muy standard bi bu mën nga ci dugal vidéo mais titre rek ngay def ay yeneen détails yu si bëri doo ko si mën a def voilà mais mën na la permettre nga dugal vidéo bien sûr mais nag comme ni ma la ko waxee YouTube application bi moo lay permettre nga mën a def détails yi wale fii voilà wala nga duggee ko Google Google gi nga def ko version ordinateur sa qui fait li ñuy am fii yëpp danga koy mën a am ci sa Google ci sa téléphone léegi boo ñëwee comme compte bu bees la ni ma la ko waxoon bouton bii ñu lay defal fii ne la nga dugal sa sa vidéo sa première vidéo day feeñ fii parce que compte bi amagul benn vidéo bu xasee am benn vidéo bouton bi dootu ci feeñ ci booy dugal vidéo toujours fii ngay ñëw nga cliquer nga dugal vidéo fii boo cliquer fii di nga mettre en ligne une vidéo nga cliquer mu yóbbu la nga dem mais moo moo boo cliquer fii pour première fois ñoo bokk fi ñu lay yóbbu comme nag compte bi amagul vidéo ñu jaar ko fi ñu présenter pour la première fois muy fii mettre en ligne une vidéo ñu cliquer ko buñ ko cliquer gis nga daf ñuy indil page bi ñuy dugale vidéo gis nga mu ngi nii mu defal la glisser déposer les fichiers vidéo que vous souhaitez mettre en ligne maanaam mën nga teggi teg mu dugg bu la neexee mën nga cliquer fii dem wëri sa ordinateur mën nga teggi teg voilà ñaar yëpp dañ la koy won bu fekkee da ngay dem sélectionner mun nga cliquer fii après nga dem jëli vidéo bi nga xam ni vidéo bi lañ bëgg dugal nga double clic ko rek mu ñëw voilà mën nga tamit cliquer fii ba léegi benn la rek ñaari bouton yi benn la fii dañ la fi defal sélectionner des fichiers waane nekkul ni booy dugal vidéo yu bëri ngay cliquer fii booy dugal benn fii déedéet fii mën nga fi cliquer bu la yóbboo fii nga am fi par exemple ba 15 vidéo nga mën a jëlandoo nag ba nga am fi 15 vidéo nga sélectionné 15 vidéo yëpp nga sélectionné leen après nga def cliquer 15 vidéo yëpp lay ñëw dugalandoo leen moo fii ñoo yem rek voilà benn la mën nga tamit def comme li la wax noonu nga cliquer gli glisser déposer voilà mën nga def nii par exemple xam nga fii mi ngi feeñ fii tam mi ngi feeñ léegi nga war vidéo bi nga xam ne moom nga bëgg a teg voilà vidéo bi nga bëgg a teg su génnee ñu war ko vidéo bi anam voilà vidéo baa ngi nii da koy jël nii téye ko clic droit ngay def appuyer bañ a bàyyi nag xëcc teg voilà gis nga voilà loolu mooy glisser déposer ñu nga commencé na jël vidéo bi léegi vidéo bi léegi mi ngi dugg si YouTube boo xoolee ci suuf mi ngi defal vidéo bu gàtt la nag guddul moo tax ji nga day gaaw di nga pour cent dèjà egg na 9 pour cent léegi suñu titre bu fekkoon nag yow fichier bi titre bi nga ko tuddee ak titre bi mu war a am bu nekkee ci biir YouTube bokkul fii ngay ñëw nga bind titre normal fii par défaut titre ban la fi indi mooy titre fichier bi titre fichier boo ko bëggee xam fii ngay ñëw mu ngi nii titre fichier bi ba léegi bu ñëwee ci fii nga xamante ni mooy. fi nga denc sa vidéo titre fichier bi mooy lan mooy titre bi nga tuddee vidéo vidéo bi bi mu nekkee ci sa ordinateur titre boobu su ñëwee ci YouTube tiitre boobu lay indaale moo tax am nañu ne li gën mooy titre bi nga ko bëgg a tuddee ci YouTube fichier bi nga tuddee ko titre boobu nga même fichier bu duggee ci YouTube mu am même titre am tam ñu ne du si def effet waaw toute façon moom soo ko mënee def nga def ko moo gën comme dina ci am effet la am ñu ne du si am effet mu am werante yu mag yi li ci gën mooy nga def ko ko bu fekkee dina ci am effet nga nga nga avantage wu ci su fekkee du ci am effet tam garaawul comme parce que boo ko ci defuloon comme du ci am effet comprendre nga idée parce que tamit ñi ne dina ci effet seen version moo gën a logique lu tax parce que moo ngi nii daf la defal nom di fichier defal la ji nga titre vidéo Sony comme vidéo bi ma dugal ci PlayStation la benn vidéo PlayStation waa 5 bi ji nga Sony PlayStation cinq édition standard xam nga titre bi ma la nekk loolu kon mën na ci def effet moo gën a logique voilà léegi loolu détail la mais bu fekkoon nag par exemple titre bi dama ko tudde rek euh, Sony PlayStation kase laa laa defoon tuuti titre fichier bi rek pour mën ko xàmmee sama biir ordinateur ma dugal ko ci nag ma bëgg ci yokku détail yi nu mu tudd yëpp muy Sony PlayStation cinquième édition standard PS5 avec euh, une manette sans fil DualSense couleur blanche su fekkoon loolu yëpp laa ci bëgg a def. léegi nag fii laa koy bindee voilà mais comme bii da fekk par défo titre bi vidéo bi dama ko bindoon titre bi ma bëgg mu nekk ko ci YouTube kon du jar ma fiy def benn changement voilà mais yow après fii ngay ñëw titre ba nga bindee ko nu mu la neexee léegi description bi am na lu fi am su fekkee da nga def description par défaut dinañ la woon après ci vidéo paramètre bi ñu la waxoon fii ci paramètre bi ni ñuy defee description par défaut description par défaut mooy da am ay affaires yu bëri yoo bind ci sa biir paramétrage YouTube vidéo boo mun na ti dugal ci YouTube rek loolu da ciy nekk par défaut du soxla nga ko ci bind da ciy nekk vidéo boo dugal mu nekk ci ce qui su dee sa sa canal dafay yëngatu ci yu bëri yu bokkul description par défaut boobu ci vidéo yëpp lay dugg mais après yow booy télécharger vidéo boo télécharger vidéo ba toll fii yaay ñëw nga def modification yi nga soxla en cas nag bu dee fàtte nga ko a dara du tere vidéo bi dina am description parce que defoon nga par défaut voilà par défaut du obligatoire da neex nga def ko neexu la nga def ko su koo xam ne vidéo yi ngay def yëpp dafay laaj ñooy bokk description comme man vidéo yi may def parce que lu bëri description bi même vidéo yi ñoo ko nuróole si kaw rek laay ay détails su ma bëggee di wane benn lien boo xam mën nga cliquer dem fee wala dara moo tax damay def description par défaut vidéo ma dugal moo ci ne léegi nag su amee lu ma bëgg yokk man maay ñëw bu may bi may dugal vidéo bi nii ma yokk ko ci waaw comprendre nga mais dinañ ci ñëw description par défaut ni ñu koy defee bu ñu tolloo ci paramètre léegi fii ma jëlaat sama même titre vidéo ma collé ko fii voilà titre vidéo bi laay copier ma collé ko fii voilà pour mu nekk mu représenter description bi ce qui fait que euh, description dafa baax ci vidéo nag bu leen ko fàtte am na ñuy dugal vidéo duñ ci def benn description loo ci ñàkk a ñàkk a ñàkk def description copier titre vidéo bi nga defaat ko ci description bi nga bind fi ñaar wala ñetti mots clés nga def fi par exemple tey sa lien wu playlist wala sa lien wu beneen vidéo ni nit ki bu duggee ci description bi au moins mu mën a gis sa beneen lien vidéo bu ko cliquer mën a dem seetaan sa beneen vidéo voilà minimum loo fi ñàkk ñàkk def def fi loolu léegi nag am na ñoo dañ fi def comme seen numéro téléphone seen email ak yooyu pour ku leen bëgg a contacter parce que day fekk peut-être dañuy def business wala daal li ñuy def laaj ko waa nga jël sa temps nag def fi remplir nga fa a remplir comme information yépp nag fii am na lu am solo lu fi am muy lan muy description bi soo fi euh, bëggee def lien te bëgg lien bi ku ñëw ku wàcc ci sa vidéo gis lien mën ko cliquer fexeel ba mu nekk ci trois lignes yu njëkk yi waaw trois lignes fii benn ligne mi ngi nii lii tegewaat fi day nekk deuxième ligne beneen bu tegewoon suuf day nekk troisième ligne trois lignes yi nag li ciy feeñ par défaut moom la YouTube di la woo defal promotion su passé trois lignes yi li ci des da koy nëbb pour nit ki gisoo il faut mu pour loolu ubbeeku léegi nag pour yow tax am na yoo xam duñ cliquer pour mu ubbeeku liñ gis rek la ñuy soo bëggee nag def benn lien pour nit ñi di ko cliquer di si dem fexeel ba mu nekk si ñetti lignes yi si kaw li si gën sax mooy soo ko mënee def ci ligne bi si kaw mu gën xaaral ñu won la ko pour nga comprendre bu ñëwee YouTube léegi exemple ñu ñëw si waa ñëw naa cliquer sama vidéo ñëw si vidéo bi léegi wàcc ci suuf gis nga description vidéo moo ngi nii description vidéo moo ngi nii gis nga benn ligne ngi nii. deuxième ligne a ngi nii troisième ligne a ngi nii quatrième ligne amul fi lu tax boo bëggee quatrième ligne boo bëggee quatrième ligne yaay cliquer plus bi li ci des ubbeeku exemple oo gis nga li ci des ubbeeku voilà mais trois lignes yi par défaut la lay defal promotion moo tax nag soo bëggee ku wàcc sa vidéo rek gis lien boo xam ne da nga soxla ñu cliquer fexeel ba lien bi na nekk ci ñetti lignes yu njëkk yi voilà loolu mooy détail bu nga xam ne am na fi solo nga bàyyi ko xel voilà mooy booy def lien fii léegi bu ñu fii fan la ñuy ñëw ñu wàccee ci suuf la mooy stop miniature par defo YouTube boo dugalee vidéo day choisir ci image yi nekk ci ci vidéo bi mu defal la fi ñetti miniature yoo xam ne par défaut nekk ñetti miniature yooyu bu la si neex mën nga choisir par exemple noonu nañ choisir bi wala nga choisir bi wala nga choisir bii gis nga par défaut su ma cliquer bi ci nga image bi mooy ñëw su ma choisir bi mu laay def miniature yi nga image bi mooy ñëw suma ma choisir bii image bi mooy ñëw xam nga bii sax mënoon naa ko def miniature xaw na rafet waaye mooy nga ut sa benn photo bu rafet nga defar ko ba mu baax boo xam day illustré li tax miniature am solo miniature mooy ëpp luy tax nit ñi cliquer vidéo nit ñi image bu ndaw boobu ñuy gis ci miniature yi ñu ñëw ba léegi wan la ko fii voilà arrière ni pour ay miniature kese gis nga boo nekkee YouTube lii di génn image yi di génn ci kaw vidéo yi photo yi mooy ay miniature léegi nag clic li ngay cliquer mi ngi dépendre ci miniature bi ngay gis par exemple tey ñu ci bii ci angle bi miniature wax dëgg yàlla boo xoolee nga si miniature bu rafet la ab xale la defal nañ ko mu muuru yiw ba pare tegal ko micro yow tey boo doon wër fii loo xam ne affaire wu alxuraan la affaire diine nga dugg rek bii noo noo def mu attirer sa attention il faut nga cliquer ko xam xale bi lan lay jàng comprendre nga idée bi loolu la ko voilà miniature moo tax mu am solo ci vidéo parce que moom mooy tax nit ñi cliquer sa vidéo ji nga doon ko xam ku bëgg football la mu dugg ci page bi di wër leneen la doon wër sax mais na fi terrain ay joueurs flèche lu muy def xool ban match la voilà comprendre nga looloo tax miniature am importance nga bàyyi ko xel dafay insister nit ñi pour ñu cliquer sa vidéo voilà vidéo bu amul mi bu amul miniature par ba pare par défaut miniature yi si nekk yi nga xam ne YouTube da koy sélectionné par défaut amu ci benn bu am solo boo xam day xëccaatee nit ñi mën nañ koy romb di dem te fekk vidéo bi am na lu am solo ah bu ko négliger toujours nga koy def mu am importance léegi nag fii ngay cliquer pour dugal miniature miniature boobu nag ni koy defaree moom bëri na ay façon dinañ ci ñëw ci vidéo boo xam ne vidéo boppam la woon lu ñuy defaree miniature ci Canva incha allah léegi nag balaa ñuy koy cliquer di dem pour dugal miniature am na détail boo xam ni dinañ la ko pour bu la indilee jafe-jafe nga xam ko muy lan muy danga nga war a valider compte bi pour mën a def direct ak di dugal ay miniature voilà loolu fan lañ koy defee dañuy dem wan la fi ñu koy defee balaa ñuy passé fii pour nga bañ ci am jafe-jafe su loolu mën ngay dugal miniature mu bloqué la ngay yow di poser question ci commentaire wala nga may envoyer message parce que dangay ngay gis ni ci vidéo bi man dugal naa ko bloqué wu ma yow mu bloqué la moo tax dañ lay wane noo koy defe léegi dangay ñëwaat ci sa YouTube comme yaa ngi sa fàttaliku mooy YouTube studio bi boo ñëwee YouTube studio bi ngay wàcce ci suuf. fii ñu def paramètre nga cliquer paramètre soo cliquer paramètre nga ñëw cliquer fii ñu def chaîne soo cliquer chaîne nga ñëw fii ñu def accès au fonctionnalités soo cliquer accès aux fonctionnalités nga ñëw fii ñu def accessible fii nga cliquer gis nga fii fonctionnalité nécessitant la validation du numéro de téléphone loolu mooy lan vidéo de plus de quinze minutes ak miniature personnalisée nga ñu cliquer fii mu jox ñu plus de détails lan lañ defal daf ñoo defal fii léegi soo fekkee da nga eh, da nga bëgg am accès ci yii muy lan muy vidéo de plus de quinze minutes soo bëggee mën a dugal vidéo bopp quinze minutes ak nga bëgg a dugal miniature personnalisée miniature personnalisée mooy comme li ñu la woon sànq nga dugal sa miniature bopp boo defar ak ngay def streaming def direct ci YouTube ak nga am possibilité faire appel aux revendications content ID mooy nga dugal musique boo xam dafa am nga dugal vidéo boo xam dafa am musique jàmbur nit kooku def euh, ii de wane ni mooy monétiser te fekk peut-être yow kooku euh, système bi moo juum musique boobu sa musique la ñu détecté ko defe ne musique jàmbur la pour nga mën a def revendication wane ni yaa moom affaire bi possibilité boobu il faut nga valider waaw option yi muy quatre option yi doo ba boo validé wul doo ko mun def léeg-léeg gis ku bëgg dugal miniature muy bañ wala nga gis ku bëgg def direct muy bañ fekk validé wul kanalam bàyyi lool xel bu baax voilà léegi fii ngay ñëw nga cliquer valider votre numéro de téléphone nga cliquer soo cliquer valider votre numéro téléphone après gis nga day détecter dëkk bi nga nekk comme ni ñu la ko waxoon nga bàyyi ko SMS nga dugal fii sa numéro téléphone voilà fi ngay dugal sa numéro téléphone léegi ñu tàppe suñu numéro téléphone 78 479 01 47 léegi ñu def obtenir le code ñu xaar mu envoyé ñu code bi waaw code bi ñëw na léegi ñu xool code bi lan lañu wax code bi ñu Google envoyé moo ngi nekk 977 386 977 386 ñu def envoyé waaw bu amul erreur mu jàll ba amee erreur du nangoo dem ndax nee code bi dañoo juum xoolaat ko 977 380 man maa juum 877 386 386 voilà voilà gis nga dem na numéro de téléphone validé félicitations votre numéro de téléphone est validé voilà léegi bu ñu demaatee voilà ci paas bi. ji nga da koy détecté gis nga jàll na voilà ji nga fonctionnalité bi léegi may nañu ñu mën a dugal miniature léegi lu ñuy def day ñëw fii cliquer voilà léegi ñu dem dugal suñu miniature miniature bi lañ lañ defaroon dugal nañ suñu miniature personnalisé gis nga léegi lan moo si des ñu wàcc tuuti fii playlist playlist bi dinañ ci ñëw tamit ko ay vidéo boppam mais pour booy dugal vidéo amagoo playlist nga créer la waale playlist en même temps parce que vidéo boo koy dugal foora nekk ci playlist voilà léegi playlist bi mën nañ ko tuddee gameplay exemple tey play parce que bu ko defee dañoo def xam nga yaa ngi fàttaliku canal bi ñu ngi ko tuddee gadget Amazon maanaam ay produits yu ñuy jaay Amazon la defal ay vidéo di ko def fii promotion ce qui fait que am 1000 abonné 4000 heures bi mën naa yéex mais heure bu ñu ko amee dinañ mën a ab dinañ mën a monétiser suñu propre vidéo la ñuy defar ba pare képp ku seetaan vidéo yi ci YouTube cliquer ci li nga xam mooy lien bi xam ne moom la ñuy defal promotion ci suufu description bi dinañ dina mën a dem ci Amazon su jëndee produit ñu gagné waale ci waaw loolu la. bu canal bi canal affiliation la du canal rek pour monétiser AdSense moo tax 1000 abonnés 4000 heures heure bu ko amee baax na voilà parce que vidéo yi day gàtt du gudd mais loolu taxul ñu defar canal pour canalu Amazon affiliation la waaw loolu moo tax léegi comme produit yi day bari. groupe bu produit bu ne dañ koy defal playlist su boppam waaw loolu si lañ li si ñëw bala muy jeex dinaa la wax après ni may def pour loolu léegi créer une playlist ngay ñëw nga cliquer léegi bi ñu tuddee ko gameplay par exemple playlist bi dañ koy tuddee voilà gameplay voilà noonu naa koy tuddee léegi public la bu la neexee playlist nag def ko public wala privé mais comme dañoo <laughs> bëgg ñëpp di ko gis public lañ ko par boo defee créer doo def ok rek dem de que gis nga. suñu vidéo sélectionné woo ko fii kon ñu sélectionné ko voilà détail la fi lii mais da ngay cliquer ma wóor la vidéo bi sel dugal nga ko ci playlist gameplay nga daal def ok gis nga gameplay day daal di feeñ voilà léegi lu ñuy def ñu wàccaat tuuti suuf mu ne ñu ah loi COPPA bi kat loo ci xam wii wala non wala limite d'âge yi nga fii lay def détail gis nga maanaam vidéo bi kat daf cee am lu ci nekk loo xam ni maanaam xale yi ndaw war ñu ko seetaan waaw am déet ma ne ko déedéet fii ngay cliquer non dinañ ci ñëw woon la par défaut tamit bu ñu demee paramétrage foofu lañ ko war a defee par défaut ce qui fait vidéo bu ñu dugalatee rek lii da ciy nekk noonu du ñëw di ko def mais lii comme première vidéo bi la ñu wan la lépp détail pour boo doon dugal vidéo benn affaire du la si jaaxal fii ngay cliquer ci nom bi voilà boo cliquer si nom bi lan moo si topp fii ngay cliquer plus bu ko fàttee pour yeneen option yi nekk ci vidéo bi mën a génn nga cliquer plus boo cliquer plus nga wàcc gis nga boo xoolee defal na la fii benn question pour affaire commerciale la YouTube ne la ndax sa vidéo bi dafa am publicité bu ci nekk maanaam ma vidéo contient une communication commercial maanaam su fekkee loolu la danga am koo defal promotion wala publicité benn produit wala dara dangay ngay fii su fekkee vidéo bi nag bi defoo si benn publicité loo kenn nga bañ koo coché voilà léegi nga wàcc léegi lu si topp tag yi tag yi mooy lan mooy mot clé yi xam nga defaguñ ko par défaut ci fi ñu la wax onglet bu ñuy parametre moo tax dañu day dañu koy demander mais dinañ la woon na ngay defee ay tag par défaut su fekkee benn style vidéo ngay def même mot clé yi ngay soxla tag mooy mot clé même mot yi ngay soxla su ko defee nga def ko par défaut dootu ko defati su dee nag comme kanaal bi ñu wax nga xam ne bu nekk mën na laaj tagu boppam mën nañ ko bàyyi mu vide après heure bu ñu defee vidéo ñu dem wër tag yoo xam dafay ànd ak moom def ko léegi tag yi lan nga ko fara def xam nga suñu euh, suñu kii moo ngi nii mooy Sony PlayStation maanaam cinq édition cinq bi euh, standard moom la ñuy euh, def li nga xam ne moom mooy suñ titre vidéo kon bëgg nañ képp kër kuy recherché PlayStation bi ñun ñu génn si léegi lu ñuy def suñu titre vidéo la ñuy jël ñu dem def recherche bu gën a simple nag laa lay woon donte am na ay application pour war ay mot clé di takk am na ay logiciel pour war ay mot di takk système yu bari lañ ko mën a copier ci yeneen vidéo yi nekk ci waa dañ lay wan nag méthode boo xamantam mosuñu ko wane ci benn vidéo muy méthode boo xam ni moo tam efficace na te méthode bu bees la voilà muy dangay ñëw fii nga coller li ngay recherché waaw li ngay recherché ngay kole soo coller li ngay recherché si nga nga xool dina la génneel ay mots clés similaires xam nga fii benn mot clé la génnee léegi ñu def ni PlayStation ci PlayStation lañ bëgg a feeñ léegi ñu wàññi nañ ko parce que lañ tàppoon mot clé long taay la waaw dinañ si ñëw xam naa ñu nekk si YouTube euh, Galsen di xam nañ long taay expliqué woon nañ ko moo tax daf lay génneel lu gën a tuuti parce que moo clé requête requête large lañ def bu ko defee dafay génneel lu gën a tuuti léegi nag indi nañ moo clé bu gën a générique muy Sony PlayStation léegi bu ñu defee Sony PlayStation lim ñu wax mooy ñëpp ñu koy tàppe lii la ñuy wër Sony PlayStation portable am ñuy tàppe Sony PlayStation kase Sony PlayStation cinq Sony PlayStation de intro 4 gis nga classique euh, setup façon yëpp lañuy ñuy tàppe léegi ñu nag lii yëpp lañ bëgg a def ko suñu mots-clés fii la ñuy jël ay mots-clés nga xam ne mu YouTube moo ko proposé moo ñu ne moo ñu ne moo moo moo ñëw ni euh, mots-clés yi la nit ñi di wër ci PlayStation kon nañ copier yooyu def ko suñu ay mots léegi mots-clés nag dafa naka lay copier boo tegee fii pour copier gis nga mu dem ban système nga koy def pour copier ko da ngay ñëw fii mu la defal da ngay fii signaler bi lan la soo wëree euh, si YouTube dalay lay permettre. su amee bind bu feeñ fii boo xam ni eh, daal dala la déranger mun nga signaler bind boobu YouTube ci xoolaat ko léegi loolu la ñuy utiliser ñun mais signaler wuñ de pour mën a copier li nga xam ne mooy bind yi léegi nga cliquer fii soo cliquer xam nga résultat recherche yi indi yooyu yëpp comme YouTube ñu ngi koy war mu koy indil nit ñi dafa buggul tam indi nit lu ñu buggul moo tax mu laa boo amee bu fi kat boo xam ne normal fi nga signaler lu ñu ko bu fee ñoom ñu mën koo dindi ci système bi léegi nag ñun signalé wuñ lu ñuy def indil nañu option yëpp léegi lu ñuy def ñun pour ñu mën a copier moo clé loolu dong la ñu soxla woon voilà gis nga cliqué nañ fii copier nañ ko léegi annulé nañ voilà parce que bu dee fii directement moom mënoo ko copier loolu mooy problème bi léegi lu ñuy def dañuy dem suñu bloc note bu ñu demee suñu bloc note ñu ubbi ko bu ñu neexoon tam ñu collé ko fii ci barre de recherche mais dañ koy def nu gën a pratique collé nañ ko suñu bloc mi ngi nii benn bu nekk dañ ciy def virgule voilà benn bu nekk ñu def virgule pour mën koo collé rek nag voilà benn mën nañu def ci virgule virgule virgule virgule virgule virgule virgule après ñu copier lépp nag clic droit copier tëj voilà léegi lu ñuy def dañuy demaat suñu page fii la ñu demandé ay mots clés suñu neexoon mots clés ñu jël noonu ñëw benn par benn ngay bind boo bind nga def virgule boo bind nga def virgule exemple su ma bindoon fi mu ne nii par exemple play play pour mu nekk mot damay def virgule soo defee soo defee virgule gis nga dugg na te tenir na ko en compte nga bind baneen nga def virgule nga bind baneen nga def virgule mais comme ñun dañoo bëgg daal mu wóor ñu moo yi gars yi dañ koy recherché léegi moo tax yooyu lañ dem copier léegi ñu supprimer bi léegi day ñëw yi ñu copier noonu ñu coller ko parce que yëpp ànd naag yëpp dañuy dugg automatique voilà gis nga lii système bu simple la nga ni doo fi nekk utiliser logiciel benn programme yaa ngi ci YouTube ci YouTube nga jëlee moo clé simple na voilà léegi lu siy topp ñu wàcc fii mu demande ñu langue et sous-titre waaw mooy maanaam euh, vidéo bi ci ban langue lañ ko def ak tamit sous-titre yi nga xam ne moom nga maanaam sous-titre mooy ma jël vidéo bi wax ko ci olof mais ma jël li ma wax ci vidéo yëpp ma bind ko ci français dugal ko ci biir vidéo bi ce qui fait que su te déggul su cliquer sous-titre sous-titre da koy mën a traduire vidéo bi texte di ko bindal ci kaw vidéo bi en français loolu mooy si sous mais sous-titre automatique nag bu dee si langue yi nga xam ne moom langue international yi la. da defal générer ay sous-titres automatique maanaam vidéo bu ñu wax ci anglais yow mën na la ko générer sous-titre français te li muy bind dina leer di nga ko mën a xam mais bu dee olof comme tenir ko en compte <laughs> soo activé vidéo bu ñuy wax olof bu activé sous-titres yi ay bind yi kenn xamul du chinois du espagnol du français ay du russe yi kenn xamul la lay bindal parce que tenir ko en compte seulement benn benn baat yi mu ci jàpp mën ko tra lay traduire li des ni ko système bi jàppee rek la koy traduire la loolu mooy sous-titre première étape bi lu ñu demandé langue de la vidéo vidéo bi kat ci ban làkk lañ ko wax voilà léegi vidéo bi ñu def suñu vidéo bi kat ci français la ñu cliquer fii pour sélectionner français voilà vidéo bi parce que ci français la ñu defal français léegi mu defal ñu certificat sous-titre maanaam sous-titre bu fekkee am na voilà léegi nga wax certificat sous-titre bi mais comme suñu vidéo bi daal ñoo ko defaral suñu bopp lu ñuy def bu ci kaw ngay sélectionner sa contenu n'a jamais été diffusé à la télévision aux États-Unis su dee sa cas nag sa vidéo bi ngay dugal daa daw télé États-Unis que lii di ci des pour dugal ko waaye ah, ñun bii mooy suñu cas bii la ñuy def suñu vidéo bi kat dawul ci benn télé bu nekk États-Unis léegi nag sous-titre bi ma wax su dee da nga ko euh, ba pare bu ko dugal ci li nga xam ne mooy YouTube fii ngay ñëw nga cliquer léegi mu def avec des données de synchronisation sans données de nga def continuer. gis nga nga dem sélectionner fichier sous-titre bi nga ñëw dugal ko biir YouTube ce qui fait que YouTube sous-titre boobu lay indi di traduire li nga xam ne mooy ay vidéo voilà léegi ñu wàcc lu si topp date et lieu d'enregistrement maanaam kañ nga enregistré vidéo bi ak fan nga ko enregistré léegi nag dalay neex nga dugal ko neexloo doo ko dugal voilà bu la neex nga dugal ko mun la par date d'enregistrement nga cliquer fii voilà nga def date date bi tey bi la tey la 17 nga cliquer la 17 dina ko jël dugal ko tey nga ko enregistré mu defal la fii lieu ban nga ko enregistré nga cliquer fii nga dugal nga tàppe boo tàppe par exemple sa adresse rek mun nga def Dakar exemple di indil dakaar dakaar Plateau dakaar Sacré-Cœur aéroport nangam nanga Dakar et cetera voilà bu dee tam da nga nekkoon par exemple mun nga def Thiaroye ñu xool boo xam dinañu indil waa caaroy gis nga indil nañ caaroy gar caaroy sur mer comprendre nga voilà bu leen mais dalay neex nga def ko neexula doo ko def parce que du obligatoire quoi voilà mën nga tàpp fii sa fi nga dëkk mu génne la tur yu bëri nga xool bëgg la jege gën a jege fi nga dëkk nga dugal ko voilà pour nit ñi xam yow ah, vidéo bi ban dëkk nga nekk pour def ko ak ban zone loolu sa lay jëriñ léegi bu pare si loolu ñëw fii licence de distribution licence bi nga bàyyi standard fii par défaut nii ko YouTube def lu tax soo dindee standard bi ban option ngay am Creative Commons Creative Commons mooy tekki lan vidéo bi kat exemple su ma ko defoon nii Creative Commons nii bàyyi ko nii vidéo bi su ma ko xasee dugal YouTube man vidéo bi may naa képp ku nekk ci àdduna bi soo soxlaa vidéo bi nga tere télécharger ko utiliser ko sans ma indil la problème droit d'auteur lool la Creative Commons di tekki voilà waaye nag Creative Commons su dàqul réutilisation de contenu voilà da nga xaw a bees YouTube bi mooy sa première vidéo yu suivre xam day compliqué xam nañ ko maanaam Creative Commons day am ci YouTube vidéo yoo xam dañ leen di maye seeni borom dañ leen a maye ku leen bëgg a utiliser mën nga leen utiliser waaye soo leen di jël danga leen di jël nga def ci ay modification soo ci deful ay modification doo ko mën a monétiser YouTube danaa la da ngaa jël vidéo bu nekk ci YouTube noonu utiliser waat ko noonu kon duñ nangu nga monétiser ko indiwoo ci dara lu bees loo xam ne loo ci yokk la luy amal nit ñi njariñ voilà loolu la mais dama lay recommander fii bu dee mayewu ngay bàyyi licence standard mooy tekk yow yaa moom say droit yëpp boo xoolee ci suuf lan la ñu defal coché fii mu defal ñu autoriser l'intégration maanaam sa vidéo bi kat nit su yoree site internet tey seetaanoon vidéo vidéo bi am solo mën na jël vidéo bi mu dugal ko ci site internet am muy daw waane nag nekkul da koy copier da koy télécharger de intégration la rek YouTube moo mayee loolu loolu lu tere vie bu ku ci cliquer am vie wala dara si yow lay ñëw bu ci nit seetaanee publicité ci monétisation ci yow lay ñëw waaw waa lien bi rek la dugal ci site internet am su fekkee bëggoo ko nag loolu mun nga décocher fii comprendre nga voilà fii mu defal la publier dans le flux abonnement et informer les abonnés maanaam boo dugalee vidéo vidéo bees ñi nga xam ne cliqué nañ sa cloche notification YouTube di leen ko yëgal ak yu demee noonu su fekkee bëggoo loolu nga décoché fii mais dama lay <laughs> demandé nga bàyyi ko ni par défaut nag parce que ni moo gën sa canal YouTube bi maanaam ci ban thème lay nekk loolu par défaut ci paramétrage tam dinañ si ñëw comme ni ñu la ko waxee wan la sa canal bu dee dafay yëngu ci benn thème kese fan nga koy placé ak bu dee day yëngu ci thème yu bëri fan nga koy placé mais comme nag par défaut defaguñ loon loolu moo tax dañuy demandé fii ci vidéo bi ñu dugal ban catégorie catégorie bi lu muy concerné vidéo bii ci boppam ci ban catégorie la bokk ñu cliqué ko boo cliquer mu ni la catégorie yu bëri si wàllum oto ak moto wàllum daal mécanique yooyu lay yëngatu oto yeeg moto yeeg yooyu wala ci wàllum musique lay yëngatu wala ci wàllum animaux rabu àll lay yëngatu wala ci wàllu sport lay wax wala vidéo bi ci wàllu voyage ak événement maanaam ay tëgg ay concert ak ay festival ak ay affaires yooyu wala ay mbirum tukkee ak ay yooyu wala ci wàllum jeu vidéo lay wax wala ci wàllu people ak blog maanaam ci nit ñi seen nekkin ak euh, blog yi nga dañuy partager information wala ci humour jëm ci comédie affaire théâtre ak yooyu ci yooyu lay wax wala divertissement ba léegi ci affaire divertissement dafa ëmb humour ëmbaale musique yëpp ci divertissement la actualité ak politique lay wax waaw loolu xam nga ko ci vie pratique et style maanaam koo xam daa am looy defar di ko jàngale wala di ko wane wala yi demee noonu wala ci war ci wàllum éducation wàllum yar lay wax wala ci wàllum euh, science ak technologie lay wax wala ci association ak engagement maanaam ONG yeeg xeet yu demee noonu voilà ci yooyu lay wax léegi ñun suñu suñu suñu vidéo bi wala suñu canal mun nañ ko def science technologie parce que ñoo bëgg garder analyse yi yëpp affaire technologie lay nekk kon bu ñu neexoon suñu vidéo bi ñu ne technologie la ba léegi ñu ne jeu vidéo waaw vidéo bii ci boppam dama koy dugal catégorie jeu vidéo mais kanaal bi ci boppam moom dama koy dugal catégorie science et technologie voilà loolu la jeu vidéo laa koy dugal dem ko dugal jeu vidéo gis nga mu defal ñu fii gis nga comme xam nga def nañ jeu vidéo bu fekkoon dafa am ci benn jeu vidéo lii rek gis nga ma def jeu vidéo la su ma defoon gis nga euh, def bloc people of bloc gis nga amatu fi dem na comprendre nga lii message bu ndaw la lu muy teg YouTube daa favoriser lu baree bari ñiy def sa vidéo sooy def vidéo nga xam loolu YouTube defal na la favori bari yu mu defalul ñeneen ñi parce que YouTube ba muy lancé wu ñi nga tax mu egg fi mu egg dëgg dafa bokk ci ñi doon def sa vidéo di ko ci dugal voilà YouTube dafay favoriser jeu vidéo yi voilà léegi ñu def fii jeu vidéo ko xool di nga am ne beneen option bu mu ñu yokkal mooy lan bu fekkee ni dafa am benn jeu vidéo spécifique yow da maanaam daal benn jeu boo xam ni moom kase ci ngay def ay vidéo di ko dugal si YouTube nga bind turu jeu bi fii loolu la la demandé waaw su dee nag defoo si jeu yu bëri ngay def bu leen nga bàyyi noonu voilà dafa facultatif quoi da lay nga def neexu la nga bàyyi léegi fii ci suuf lan la mu defal ñu commentaire ak avis maanaam ñiy commenter say vidéo ñaari cas yi mu ci def mu defal ci nga vérifier les commentaires maanaam fii da ngay coché mu indi lay option autoriser tous les commentaires képp ku commentaire ak lu munti wax daal na jàll nga cliquer ci kaw su dee da nga bëgg système bi di vérifier commentaire yi maanaam commentaire bu mu jàpp ni tegginewul système bi bloqué ko nga cliquer nga bàyyi nii par défaut boobu la YouTube def wala vérifier tous les commentaires avant leur publication bii boo ko defee képp ku commenté YouTube da koy def privé ba yow nga ñëw liir ko mu neex la nga valider ko mu ñëpp mu soog a nekk public su la neexee nga désactiver les commentaires vidéo bi kenn du ci mën a commentaire. voilà comprendre nga mais mun nga ko par bàyyi par défaut bii nga xam ne ku commentaire mu jàll mais su defee ay lien wala yoo xam ni daal YouTube jàpp na teggi na wala YouTube bloqué ko voilà mun nga bàyyi boobu fii fii lu mu la defal trier par maanaam mun nga trier par mieux note yi ak yooyu daal commentaire yi yi yi commentaire yi yi nga xam ne moom lañ gën a noté féete kaw wala commentaire yi ñu mujjee def féete kaw voilà yi nag mooy nga def commentaire yi ñu mujjee def di féete kaw am na ñoo xam nag dañuy bàyyi noonu commentaire yi yi gën a yi yi jiitu yi yi njëkk a def nekk ci kaw koo def commentaire bees mu dem nekk ci suuf c'est vrai que nit ki bu duggee ci vidéo bi di lire commentaire yi mi gis day yàgg waaw li gën nga def commentaire yu bees yi di nekk ci kaw yu yàgg yi di nekk ci suuf loolu logique voilà léegi fii suuf ban moo si des benn lu mu la defal fii afficher le nombre de spectateurs qui ont cliqué sur j'aime ou je n'aime pour cette vidéo maanaam boo duggee ci vidéo toujours xaamoon la ko mu gën a simple voilà léegi par exemple xaama cliquer sama vidéo bi xam naa am na ñoo xam def nañ je n'aime pas voilà ngi nii Voici Malcolm. il a publicité boobu moom xam nga rek gis nga boo xoolee. vidéo bi am nañu ko aimé 316 personnes ñoom aimé nañ ko jàpp nañ ni daal neex na leen wala am na solo wala daal ñu cliquer fii parce que da leen neex ñu cliquer voilà parce que lii kenn mënul déterminer nit ki mais ñu bëri nag li tax mu jug mooy cliquer wane ni vidéo bi neex na la su fekkee vidéo bi jàpp nga neexu la nga cliquer fii de vidéo bi neexuma loolu la ñaari bouton yi di fii sa sa say video ñii cliquer j'aime ak ñii cliquer je n'aime pas baaraam yi di feeñ nit ñu di ko mën a cliquer mais nombre bu ñaata ñoo ko aimé ak ñaata ñoo ne neexu leen du feeñ loolu ngay defee fii fii ngay ñëw nga décoché ko soo ko décoché léegi nombre yi du feeñ dina defal j'aime je n'aime pas rek mais ñaata du feeñ mu ngi nii affiché le nombre de spectateurs qui ont cliqué sur j'aime ou je pas pour cette vidéo voilà boo décoché fii loolu dootu feeñ boo ko bàyyee nii nag mooy tax gis nga ñi aimé ak ñi ak ñi ñi aiméwul ak ñi def je n'aime pas da leen di feeñal voilà bu fekkee da ngay dugal vidéo vidéo yi di bëri ñu bëri par exemple bu doon contraire ba 316 personnes ñoo def je n'aime pas 12 personnes def j'aime mën na ma déranger mën naa dem ma ma ma nëbb ko pour mu bañ a influencer keneen ku bees kuy seetaan gis ni gars yi nee nañ je n'aime pas rek mu bañ a seetaan ne ah kon de vidéo bi neexul voilà comprendre nga léegi boo paree foofu looy def fii ngay cliquer nag suivant parce ñu waroon def détails sew son ci la ko voilà nga cliquer suivant boo cliquer suivant nag fii léeg-léeg mu am yoo xam ne mu am fii nga nga gis lii may def nii te mun ngay dugal vidéo du ko muy lan parce que vidéo bi dafa gàtt dañ koo dugal yi nga terminé na dugg na bu yàgg su dee sa vidéo duggagul nag option des fois yi mën na giri du nangu nga def ko te vidéo bi duggul mun nga ko sauté après nga waat def ko loolu bu ñuy wane ci yeneen leçon dinañ ko wane incha allah mais comme vidéo gàtt dugg na avant ñiy def lii su la neex nag booy dugal vidéo boo ko dugalee ba mu egg si si page accueil boobu nga xaar ba vidéo bi dugg cent pour cent ngay soog a ñëw def lii ma la wax yëpp bu ko defee dangay ngay di yëpp day yomb ci yow voilà soo fekkee yaay xool daal ni nga ko bëggee mën nga ko def noonu mën nga ko dem di def en même temps yi gris nga sotti ko su demee vidéo bi dugg yooyu yëpp dina nangu nga def ko nga ñëwaat après rattrapé wu fii laal pour lan la écran de fin la écran de fin mooy maanaam sa vidéo bii nga dugal kat suñ ko seetaanee ba mu jeex nga présenté beneen vidéo ci fin wu vidéo bi pour nit ki mën a cliquer sa beneen vidéo boobu mën koo seetaan écran de fin loolu la mais na comme bii vidéo bu njëkk la kon lu muy tey canal bi amul beneen vidéo xam nga loolu ngay comprendre léegi écran de fin bu ñu ko defaree tamit dina dina xaar ñu dugal yeneen vidéo pour mu soog ko dox parce que bii mooy première vidéo beneen vidéo bu ñu war a cliquer amu waaw ah, moo tax dinañ ci def peut-être playlist bàyyi ko noonu léegi fii ngay cliquer ajouter wala nga cliquer imp su dee importer mooy am na vidéo boo dugaloon. vidéo boobu defoon nga ci écran de fin écran de fin bi nga defoon ci vidéo teg teg nga bëgg mu nekk ci vidéo bi da ngay cliquer importer à partir de vidéo soo cliquer nga sélectionner vidéo boobu léegi nag comme du suñu cas fii la ñuy def ajouté bu ñu defee fii ajouter lan la ñuy def ñu def daal fin vidéo bi ñaari vidéo lañ bëgg mu nekk fa wala benn vidéo ak sa ko canal nga bëgg mu nekk fa mu ni vidéo bi féete droite logo bi féete gauche wala vidéo bi féete gauche logo bi féete droite de toute façon bii ak bii ak bii. boo ci choisir après mun nga inverser parce que may nañ la nga déplacé ñoom sa xaw xawmul tax ñu def fi ñett yu bëri mais noonu ñu fa def benn bi parce que interchangeable na fi loolu lii nii boo choisir bi par exemple tey mu choisir bii di nga xam nga par défaut logo baa ngi fii vidéo baa ngi gis nga mun nga ko def nii nga def nii voilà moo tax mun nañ fi def benn voilà gis nga mun nga ko def nu mu la neex voilà gis nga changé ko indi logo bi nii voilà logo bi pour nit pour mën a sa canal vidéo bi adapté après boo defee adapte nii mooy teg après vidéo boo yi ngay dugal ci biir YouTube YouTube moom dina xoolal boppam vidéo boo xam ni kiy seetaan moo koy war a gën a intéressé mu indil ko ko voilà loolu la léegi nga def fii enregistré bu defee enregistré nga ñëw ci suuf fii mu na ajouter des fiches fiche moom benn lien booy dugal la mu ab lien vidéo lien playlist wala sa lien site internet boo xam ne approuvé nañ ko voilà du n'importe quel site bu approuvé loolu dinañ si wan la na ngay ajouter site nga cliquer ajouter boo cliquer ajouter léegi ñu préfère ajouter playlist voilà playlist bi nag bu ñu koy ajouter dañ ko ajouter commencement vidéo dañ koy ajouter fii ci côté fin bi waaw pour nit ki lu mu bon bon dina seetaan lu bari te du gisagum playlist bi voilà ajouter ko foofu playlist baa ngi ni game play la gis nga ajouter nañ ko fi baar bi nekk foo teg baar bi avant ngay ajouter rek boo tegee baar bi ajouter foofu lay ñëw boo tegul dara ci commencement bi lay ñëw nit ki day commencé seetaan vidéo bi rek i boobu ci kaw mu ko ni playlist baa ngi fi boo neexee mën na ci cliquer voilà léegi nga def enregistré boo defee enregistré ci nga ñaare yëpp def na V validé léegi lu ñuy def suivant fii ci suuf suivant bu ñu defee suivant ñu nga fi affaire droit d'auteur yi la comme vidéo bi <laughs> bu fekkoon ni mise en ligne bi jeexagul mën na la demander vérification nga xool mais comme ji nga aucun problème détecté par défaut xool na ko parce que vidéo bi dafa gàtt détecté wul benn problème droit d'auteur moo tax ji nga validé na ko boppam ñu jàll étape bu am solo la tamit mooy vidéo bi ngay dugal nii man daal maa ngi koy dugal mais bëgguma kenn gis ko dama koy denc ba fii ak ginnaaw suba laa ko bëgg def ko mu nekk public bi ñu gis ko quoi boobaa fii ngay ñëw nga def privé voilà comprendre nga su dee ko bëgg def privé nag mais bëggoo kenn gis ko mais dafa benn nit boo xam ni vidéo par exemple doon leçon booy jàngale la bi mais bëgg nga Ablaye moom am si accès mais bëggoo keneen gis ko su booboo da koy partager fii Ablaye Ndiaye nga cliquer partager nga dugal jiimelu Ablaye Ndiaye après nga def enregistré Ablaye Ndiaye dinañ ko envoyé invitation wan ko ni ajouté nañ la ci benn vidéo Ablaye Ndiaye moom dongu mooy mën a seetaan vidéo bi ci YouTube kase keneen du ko mën a seetaan voilà su fekkee da nga ñëw fii option bi topp muy non répertorié non répertorié soo cliqué mooy bi na dugg ci YouTube képp koo xamante ni envoyé nga lien bi da koy mën a seetaan ku envoyé lien bi da koy mën a seetaan mais kenn du def recherche ci YouTube gis ko kenn du abonné sa canal gis ko pour nit gis ko il faut lien bi nga envoyé ko muy lien bi foo ko copier envoyé ko ko su ci cliquer kese la koy mën a seetaan loolu mooy non répertorié beneen bi su topp muy nekk fii public soo ko defee public mooy léegi après boo enregistré ba dem ba def ok automatiquement vidéo bi disponible la ku bëgg gis-gis ku mën na ñëw voilà loolu mooy li nga xamante ne moo si nekk léegi option yi nga xam ne moom nga koy def bu jàllee xam nga ñun ñu mun nga ko def non répertorié mun nga ko def comme public wala privé bi si topp ci suuf mooy programmer maanaam vidéo dama koy dugal damaa bëgg mu daw mais comme maa ngi koy dugal ni tey ci suba gi nii 11h moo jot maa ngi bëgg mu daw 10h si guddi léegi dama koy programmer 10 dama koy programmer 10h si guddi ce qui guddi bu jotee duma fi ñëw di def vidéo public du jar nga koy def privé bàyyi ba 10h si guddi nga connecté waat di ko def public déedéet da nga koy programmer rek YouTube moo la koy defal privé boppam. su 10 heures si guddi jotee YouTube moo la koy waneel boppam jeex na loolu mooy vidéo programmé fii ngay cliquer bu boobaa programmé soo cliquer programme ji nga tableau bi la lay indil bu la indilee tableau bi mu wax la ban date nga ko bëgg a def toujours booy programme boo cliquer fii jour bi nga nekk jour bi si topp la lay defal date bi parce que day jàpp comme da koy programmer nekkul tey nga ko bëgg a def te xam nga mun na nekk ni yow yaa ngi ci suba gi ñoo ngi ci 11 heures ci suba nii te maa ngi ko bëgg a programme par exemple 10 heures ci guddi léegi boobaa fii ñëw nga cliquer boo cliquer fii jour tay bi gis moom lay def mu giri nii may na la nga def ko ci jour tay bi mais munoo koo def ci heure bu passé Ah, heure bu nekk ci kanam bu ñëw wër nga ko mun def parce que programme la voilà léegi jour suba bi nag lay def lay def mu la pour mu continuer ak yeneen jours yi mais mun nga ko rétrograder jours yi ñëw ba tey jii nga nekk donte 11h jot na léegi ñu indi ko tey laa ko bëgg a dawal 17 gis nga moo tax mu def rouge wan la ah jour bi nga choisir kat du heure bu la ci neex nga ko mun def loolu la lay avertir léegi mu ñëw nag demal ci heure yi parce que 0 la def par défaut te 0 heure ko daw parce que na le 17 0 heure passé na nga cliquer fii flèche bi soo cliquer flèche fi ngay wàcc xool choisir boo choisir heure bu ñëwagul nag après dina la bàyyi mu jàll léegi par exemple ñu ñëwoon ne ñu ngi koy def ñu ngi koy programmer vingt waaw heure ngoon gi gis nga def nañ ko vingt rek douze bi dem na parce que vingt di le 17 ci vingt heures ñëwagul comprendre nga léegi nag mu des fii ci suuf fii ci suuf lan la muy première voilà première xam nga fii programme la léegi fii première la première mooy lan mooy soo coché fii wane ni da nga def vidéo bi première xam nga da kaa programmé pour mu daw mi ngi nii bañ ko programme pour mu daw tey ci huit heures si guddi su ma kosee fii def nag mais buy daw na nekk première mooy damaa demande YouTube dawalal ma ko tey le 17 ci vingt heures te buy daw na nekk direct bu nekk vidéo nga xam ne ku cliquer seetaan ba nekk nga avancé arrière déedéet na nekk direct ba ba muy jeex su demee direct ba ba muy jeex ba pare mu soog a nekk vidéo loolu mooy première suy daw automatique day nekk direct direct première la loolu tudd su dawee ba vidéo bi jeex nag. mu soog a nekk vidéo normal ci YouTube su boobaa fii ngay coché soo coché fii vidéo bi dina nekk première waaw bu doon bi dee canal boo xam du buy soog bi am na option bu ciy nekk boo xam ne dañ ko si yokk muy nga définir première bi première bi si boppam mën nga ko fa nga sélectionné waat beneen vidéo bu gàtt boo xam ni day nekk publicité première bi. loolu tam am na léegi wane woon nañ nu ñu koy defee ci euh, canal Galsen Tube bi nga ne moo am na possibilité am ko ak yeneen canal yu bëri mën nañ ko léegi voilà mais bi comme canal bees dàq la option boobu gis nga génnagul parce que ji nga détecté wul dara ci biir canal bi léegi la moo siy topp day ñëw fii ñu def programmer parce que comme ñun ñoo définir ne dañoo programmer su dañoo def euh, dañoo defoon ci public bi publier la ñuy def mais comme dañoo def fi programmer bu ñu ah kon programmer la voilà ñu cliquer fi programme buñ cliquer programme bi gis nga jeex na vidéo bi dugg na biir YouTube léegi ngoon lay xaar 20 pour mu daw buy daw day nekk direct boobu jeex léegi nag mu indil ñu bouton partage yi dañu ah bu fekkee dem réseau yi yaa ngi ci ah nga partager ko foofu sa gars yi xam ni yow ko dugal nga vidéo programme ko voilà bu defee mun nga cliquer fii nga partager Facebook cliquer fii Twitter et cetera voilà yëpp ay comme nag kanaal euh, bi amagul 1000 abonnés mënagul def post communauté sinon daf la doon bindal fii post nga cliquer ko mën a partager ci sa post communauté mais bu fekkee yow sa canal am na post communauté toujours bu ko fàtte boo dugalee vidéo bu la indilee étape bi euh, copier lien bi fii nga cliquer fii copier lien bi cliquer post communauté coller fa lien bi après bind sa benn hashtag arobase ngay def ak sa turu canal après nga enregistré ko ce qui fait que sa communauté dinañ am beneen façon bu ñuy gisee vidéo pour mën a cliquer pour mën si dem kon nii mooy ni nga xamante ni noonu la ñuy dugalee euh, vidéo léegi ñu tëj ko jeex na ñu fermer wala gis nga vidéo baa ngi nii voilà mi ngi nekk en ligne léegi bu ñu fii nga di nga dem dinañ dem ko seet dinañ dem moo mën a rep seetaan ko voilà léegi mën nañ dem ñu xool ci canal bi nan lay affiché ci canal bi mën nañ tëj dem ci li nga xam mooy afficher la chaîne ñu xool apparence bi muy am léegi comme am nañ benn vidéo voilà comme am nañ benn vidéo gis nga suñu vidéo moo ngi nii wala defal nañ ko affiche bu rafet boo xam ni képp koo xam na ngay ci ay jeu boo ko gisee dina la intéressé nga mën a cliquer léegi nag ñu wax ñaari affaire bi am rek wax la ko soo ko tëj vidéo muy miniature mooy tax nit ki di cliquer mais bu cliquer lu am solo li ngay wax ci vidéo bi mooy tax nit ki seetaan ba mu jeex voilà bu dee vidéo bu ñuy wax la bu dee vidéo bu ñuy wane tam li ñu ciy wane importance am bi mu amal nit ki mooy tax nit ki seetaan ba mu jeex waaye miniature mooy xëcc nit moo koy moo koy jox envie mu cliquer miniature bi lay xool peut-être lire titre bi gis na lii amal na ko solo mooy tax mu ne clique pour seetaan su nag liy tax mu toog ci vidéo bi di ko seetaan di ko seetaan ba mu jeex loolu mi ngi dépendre ci lan nga ci vidéo bi waaw boo ko tenir en compte rek mën di xam nan ngay travailler say miniature ak ni ngay travailler say euh, vidéo miniature mooy tax nit di cliquer contenu bu am solo mooy tax nit seetaan ba mu jeex léegi onglet personalisation nag dinañ ñëw mën ci nag def comme liñ la ci waxoon en attendant ñuy def loolu dañ jéem a fexe dugal ci kanaal bi 10 vidéos comme yi suñ ci defee 10 vidéos ci journée tay bi ce qui fait suba comme <laughs> damay bañ wax sax ay suba ginnaaw suba toujours ma naan la vidéo bii di ñëw parce que dama moo gën a wóor waaw vidéo bii di ñëw dinañ ci def daal 10 vidéos bu ko defee vidéo bii di ñëw. ñu wan la nag euh, si onglet boobu nan nga koy personnaliser def ci ay playlist et cetera su fekkee nag da yor canal bu bees te defagoon vidéo concentré wul tey nga def vidéo même bu nekkul sa vidéo bi bu efficace bi nga war a dugal yaa ngi bëgg a programme def vidéo bu garaaw defaral benn vidéo rek même bu doon da nga jël téléphone nga filmer sa bopp nga testé nga dugal nga état bi ñu def nii yëpp nga def ko nga xool voilà lool dina dina day yombal loo seetaan rek pratiquer ko tey bul xaar ba suba bul ne vidéo bi defaraguma ko de jëlal sa téléphone nga film benn affaire rek boo xam neex na la nga posté ko en attendant ngay commencer defar sa vidéo yi nga bëgg voilà loolu mooy li nga xam ne moom lañ leen indiloon tey jërë ngeen jëf